Ousmane Sonko la mais waxuma dara manako tonton lan nga bëggoon munema massage la bëggoon mo waxat ko massage ban massage parce que fii nii lii lañ lii lañ fi am tonifiant lañ fi am savonnage 4 mai neuromassage body body ak jacuzzi munema defal ma tonifiant parce que dama yàkkamti mën na kon tonifiant de 20000 francs la munema wa d'accord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

mu ne ma xam nga yow da ngay dof dof mais xàmmee nga mu baax mën na ko tonton aussi moo xaat mën na ko tonton de man de yaakaar naa ne fii muy tey di yow di keneen di sama papa di keneen ak keneen mën na ko ku fi mënta dugg rek client nga parce que cabine de massage lañ wax mu ne ma yaa ma gën a xàmmee te da ngay dof dof lu xam naa ni nga tudd parce que loolu loolu ma njëkk a tiital parce que boo duggee ci fi cabine de massage do ma sa wax sa tour xana patron bi nga xamantene mom ngay liggé ko kessé moy nek ki nga xamantene xamna sa tour mais fofu ñëpp Aïcha lañ ma xamé Aïcha lañ mu ne ma tuddo ben Aïcha Adji Sarr nga tudd wax fi ma dëkk wax fi ma dëkk Grand yof te lo sama patron kessé kessé ak yàlla moko xamo mais sama xel sa demul na mu na am ak sama contact patron parce que patron sama patron bu amé client bu am solo bu ñëw dalay wo téléphone ne li ki nga ñëw te jour bobu wo ma téléphone ma xalaat ne xëy na sax xamante wuñu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 mën na ko tons léegi ngir yàlla rek bàyyi ma parce que maa ngi bëggoon def le tout pour échapper mën na ko ngir yàlla rek baal ma ci pour beneen yoon sax boo ñëwee au moins ñu pré parce que man mosu man xaw ma góor xaw ma lii yëpp ngay def mu ne ma dangay fen après si la ma xoj ma lii ma ci ginnaaw jël loxoom dugal ko sama biir awra awra gis ne li ma ko wax dëgg la mu ne ma laa tu me donnes envie de parce que lii mosuma ko woon xalaatee si jigéen yoo xamante ne dañuy lii nii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 ñëpp ñu ngi wax ne nag dama wax ne daf ma pointe arme pointe uma arme de mais def ma ne gis nga samay pistolet yi que veut dire que yor naa yoo xamante ne mën naa ko jox samay nit am na ay nitu fet ñu def ba xam fi nga dëkk xam fi ni nga tudd mun naa def noonu ba ñu rey la te kenn du ko xam. kañ loolu mu ngi nekkoon 2020. est-ce que ba mu defee lu ma def ba pare dem yoonam ne ma carrément li ma fi def foo ko mënti wax ci àdduna kenn du la gëm ndax instant bi même boo demee porter ma plainte tamit.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 parce que je don def ay massage corps à corps dañ don def massage deux pièces dañ don def lépp fofu non mu ma amatu fi massage corps à corps tuñu amatu fi deux pièces amatu fi yenn yi fi amoon yep amatu fi léegi tonifiant la def relaxant savonnage ak jacuzzi mon ko jacuzzi bi mu ngi am ba legui ci jacuzzi bi des fois da ngay tase ko xamantene dalay lambatu ci biir jacuzzi bi def tuñu di la làmbatu mun na mënoo ñëwal fii nii sax léegi weer laay fay.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 mosuma gis jigéen bu mel ni yow fi ma jaar yëpp ci cabine yi ma jaar yépp mosuma gis jigéen bu mel ni yow. aji da ëmb. sama vie privée la franchement. bu wax ni moom moo la ëmbal da ëmb. je préfère garder ça. yaa ngi wax sànq ne da dem. Euh,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 effectivement sama xel ni la demone enregistrement yaangi sama téléphone. ñaata mois nga tolu mu ne ma effectivement sama xel demone na ne Ousmane Sonko la waye pour baña causer ay problème da ngay jël coca nga def ci 3 cuillères de café nga nan ko su boba da ngay teddi na metti nak mais da ngay teddi bo yeewoo nga dem ci pharmacie ba jënd ben garab bo xamanteni day dindi bir bu muy metti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

bañ demee hôpital tamit ñu def ay prélèvement docteur bi ne ma ndax danga doon jël ay pilule ma ne ko déedéet mu ne ma mu jox ma beneen pilule ne ma beneen lii nii bindal ma ci feuille ne ma tu risques de tomber enceinte wala nga sentiroon ne tu es enceinte wala affaire yooyu ba pare ma ne ko non non xaw parce que bëgguma woon joxe détail bu ba mu ne ma kon jëlal pilule bu fekkee ne tu n'es pas enceinte mën nga jënd pilule yi nga naan ko.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

est ce que wax nga Ousmane Sonko euh, mosuma toog ak Ousmane Sonko di ko wax lu jëm ci sama vie mosuñu toog sax di am ay yenn paroles yoo xamante ne day jëm ci man. day ñëw seet say kese la seexoon ak man. bu fekkee ne mosul say moom na na jàpp ba set teg kaamin waat bu fekkee ne mosul seex ak man waxatuma sax nañ lu bari loo xamante ne ñëpp a ngi naan.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 moom nii la ma ko waxee woon te pourtant mën naa wax ni sax gagné na parce que li mu ma waxoon yëpp gis naa ko moom wax na ma ne pour lii bopp setal boppam il est prêt à te yaakaar naa ne wax na ko ci télé bi ñëpp dégg ko tollootuñu ci moment boo xamante ni dañuy nekk ci ginnaaw dañuy toll pour joxe suñu bakkan te wax naa wax ne mën naa ko wax maa ngi ko koy wax direct fi a gagné. nga ci def ni la ni que lu mu déclaré biir këram la moom dafa déclaré ne ibaadu la biir këram alors que non.

ndax mosuma jàll jàll ko baat wala mosuma xuus dans les détails que nous mu doon def man ba ma ci gendarmerie ba sax dama ne carrément que bu ko kenn yëg ay keneen ak keneen man tamit ak di ne ci massage ñu dañu ne que la est-ce que xam nga est-ce que ni 40 millions.